bu fekkee am naa lu may rëcc ci sama adduna de mooy sama kër yu rafet yi ma tabax bu tey doon démb dootuma ko te yàlla xam na ko lay lancé bu tey doon démb dootuma ko def ndax loolu nag day mel ne Sëriñ Tuubaa moo ñu lu luñ ko gën a jege rek adduna di ñu gën a soof luñ ko gën a jege si day mujj siñ bi rek nga bëgg te siñ bi eh, xol bëgg sëriñ bëgg leen xëju ca sëriñ bi daa wax naan Sëriñ tubaa du fecc lépp saako waaye loo gën a jege sëriñ bi rek di gën a di di di di di gën a dëddu àdduna di di di ko di ko gën a bëgg moom mu lay gën a gënal lépp nag mm-hmm. loolu la yàlla nañu ci dimbale.